boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo ci jamono yi nga xam ne ñëpp dañuy yittewoo xarala yu bees yi jëm ci kër wala ci bureau ak yeneen digital store indeeti na ay xeetu matériel yu mucc ayib yi mujj génne ci jamono ji ay matériel électroménager informatique yu ngeen di faral di gis ci marque yu mag a mag yi su ngeen demee ci sunu showroom mi nekk Bourguiba wala Corniche Soumbédioune Colobane ak Point E lépp nga fa digital store lépp lu mu jaay ànd na garantie am na service après vente bu farlu buy dem fépp ci région yi ngir rek da bànneexu client yi digital store lépp lu mu la jaay dafa la koy livré ba fan ko soxla li ci gën a neexati mooy lépp lu ngeen fa jënd lu tolloog ñaar fukki junni wala lu ko ëpp digital am na partenariat ak banque Microsen ak Cofina ngir yombal leen employeur bi ci 12 mois wala 24 mois moo xam ndax ordinateur ngeen jënd wala téléphone portable wala congélateur wala réfrigérateur wala climatisation centrale wala split su leen neexee itam ngeen def seen commande en ligne ci www.digitalistore.sn Digitalistore mi ngi ci réseaux sociaux yi Facebook Instagram LinkedIn ak Digitalistore Améliorez votre quotidien. Téléphone 33 823 77 87. ala yéen a ko doon laaj yegg si na TQG Touba Quincaillerie Générale ñu gën ko xam ràññee ko lool ci njaayu matériel u quincaillerie de qualité egg na Kër Massar showroom bu mag ca Kër Massar showroom bu mag a mag a mag ca Kër Massar lii lu rëy la lu doomu réew mi def ca Kër Massar soxlaatu leen dem ba dakaar pour outil matériel u quincaillerie yu baax TQG Touba Quincaillerie général Kër Massar yéen la fi nekkal lépp lu ngeen soxla am na fi peinture sanitaire décoration intérieure serrure de qualité matériel de travail et d'ouvrage am na fa di ci woo waa Kër Mbay wa waa Jaxaay waa Tiwaawan Pël waa Fass Mbaaw waa Kër Njaayloo waa Tëngéej bu kenn demati Dakar di wuti matériel u quincaillerie Touba quincaillerie générale egsi na Kër Massar du yéen a ko doon laaj li ngeen bëgg rek ci la ñu dox lii daal seen yëf la yéen waa Kër Massar ku ci bëgg lu la leer wooteel ci 33 879 28 28 wala 78 206 88 88 Touba Quincaillerie Générale notre force la qualité. jullit yi gannaaw bu nu sante sunu borom subhaanahu wa taala jullit ci na ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal dénk sunu bopp. nu àndandoo teg sunu tànk ci taqwallah gannaaw ba ca sunu pas-pas jiitoo sunuy wax topp ca ak sunuy jëf bis bu nuy woo yàlla nu fekk nu doon dëgg dëgg jullit tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci benn baat bu ñu baree bari di wax naan ñépp ñee ñépp ñoo yam suñu boroom mi ngi wax ci alxuraan ne yàlla digal na leen inna na ngeen xam ne yàlla diggal na leen ngeen maandu ci pas-pas ci wax ak ci jëf te fexe ba ku ngeen jëflanteel nu mu gën a rafete ku xool la ko gis mu jóge ci seen wet bu ñu leen koy delloo ak bu ñu leen ko delloo te jëkke nag ñi leen gën a jege ñi nga sësal teg sa ña ca topp teg sa ña ca topp tàmbalee fi nga jot ba ba ngay ba ba muy law di dem waaye yàlla ni mu diglee loolu ni la teree lool kuy xool moroomam ay gët sax yu mu ko wër te xool sakkantuma di ko ko wax sekkantuma di ko ko jëf mu jëm ci moom lislaam nag bu ñu ko bëggee tënk daal bu ñu la laajee lu mu doon nee mooy diina ji nga xam ne fi mu teg tànkam te du ko teggi mukk ci kaw maandu te gu ma sëkk la ko teg maandu googu suñu boroom di wax nag mooy kenn ku ci nekk nga jox ko wàllam lam ya yayoo ku ko def rek yaa ngi dox ci maandute kenn ku nekk lam yayoo boo ko amee lee nga jox ko ko rek ci sa ci sa ci sa jëmm ci sa jëflante ndax yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne kenn ku ci nekk bu bu ñëwee ci pénc ma su fa amee kàddu nañ ko ko jox buñ ko ko xañ mukk loolu mooy ak maandute lenn nag ci ñi ma junj ne dañuy wax ne ñépp ñoo yam damay jëkke ci li nit ku ñuul léebu tënk ko lépp nit ku ñuul dafa wax ne ku ne ñee di ñëw ñépp a tolloo njool maa la neexul rek waaye suñ cër yi ñu suñu borom jox ku tàllal ay waaraamam dana xam ne am nañu sutante ci biir waaraam noon la ko fekk noonu la soobee suñu borom kon boog ñépp a yam ci nangam ji xel nangu na ko ci lan mooy ku ci nekk lam ca am rek ñu jox ko ko bañ a jox kenn wàllu moroomam ay ayati quraan yu bari suñu boroom daf cay wane ne lépp yemut moom mu bind wax ci benn aaya ne ku man li na ko def di yàllaa ko def moom ku man nag na def ñu xool am na ci bu muy wax ne xalaqa samawati bi gayri amadin tarawnaha ñun ñi kenn ku ci nekk na yëkkati bâtiment rek mu jëm kow te ku xool du gis benn poto tabax sax diis na waaye nag kenn jéem a yëkkati menn mbaar moo xam ne rek mbaarum sàkket la te du ko defal ay jën xool ba xam moom de mooy moom xalaqa samawati bi gayri amatin tarawnaha wa alqaa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba loolu lépp kenn mënu ko gis nga bu ñuy bëgg a yóbbu ab tëli fi barab lañ cay daj lañ cay daj danañ fàkk danañ ko tooyal danañ ko defi doj defar cay doj lu muy mujj day xëy di fett benn par benn waaye yoon yi suñu boroom sàkk ci kaw suuf si lal lal suuf si mu tàll ñareet fu way bëgg a dem mën ngaa dem fu way bëgg a dem rek mën ngaa dem waaye nag li nit ñi gën a tëli mooy wa anzalna min as-samaa'i maa'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim donte nit dana tooyal suuf ji ko mu sax waaye suuf daa am digalu saa bu tooyee boo jiyee daa war a sax yàllaa ko ko digal noppi na ca waaye wàcce ndox muy jóge ci asamaan di du tuuru moom moom képp la moo tax mu yëkkati loxoom bu doon ci ñiy bàkku daan ne hada xalqullah fa arawni maada xalaqa maasa xalaqa alladina min duni won leen ma li ñeneen def lu xaw a niru bokk kon bokk moom moom moo bind ci coobareem ak kattanam te yemalewul dara ak dara bu ñu ko gënee jegeel si lu nit mën a teg loxoom danañ gis ne des na gas fii ab forage mu neex lool ñu gas fee ab forage mu wex xat xorom ñun ab forage lañ mën a gas walla ab teen waaye moom daa defar ay géej ak i dex te yooyee benn niruwu ci ak sa moroom wa ma yastawi albaxraani hada adbun furaat géej goo xam ne gi daal lewet doom daanaka may naa tànk naan am na wala ñi géej sori am na dex yoo xam ne kenn munu koo naan ndax sa xorom waaye am na dex yoo xam ne yi daa lewet doom wa hada hada adbun furaat saa'ighun sharabu wa hada milhun ujaaj milhun ujaaj faqat xorom nga xam ne kenn mënu sa jàllale benn guuxum ndox te kat jën yi ñu cay jàppe xorom sa du ca jënewu saf xorom ñu yàpp ko mu saf saf xorom déedéet te moo ne ci xorom la julli ci la yàpp loolu nag mooy coobare suñu borom waaye bu ñu demee ci yi ñu dëkkal di ak jur sunu boroom def na yonent bi sallallahu alayhi wa ñee di ñëw daañu la laaj ba xam ñam yi dagana lekk ak yi dëgganut a lekk ba mu leen di limal yi dagana lekk daf caa boole rëbb woo xam ne dangaa jal sab këlbu mu dem jàpp ko rëbb wi nga xam ne këlbu da koo jàpp ci sa ndigal indi ko donte daa dee ci ay diggante ay gëñam it yëmut mukk ak këlbu bi nga xam ne dangaa fekk mu lottal ko ba noppi baray ko kon bokk foofu it gisees na fa ne yàlla yëmaliwu fa ba ci dawkat yooyu bi ci takkook nit ki mu jàngal ko yar ko niteel ko yëmut ak ba nga xam ne moom kenn yaru ko kenn tàggatu ko kenn jaxasowut ak moom ba di ko nurul nit kon foofu yemoo dafay daal di dafay daal di wuute lool lépp yam moo ne moo waxoot alxuraan benn laaj boo xam ne kenn tontoogu ca ba tey tontu la lu yomb la waaye nag ñi nga xam ne lu ñu gis gëmm kenn mënul leen dara moo ne yonent bi qul hal yastawi al a'ma wal ki nga xam ne ab xolam daf na jàkk suñu boroom di ko xalaat guddi ak bëccëg di déglu ay ndigalam ba mu ne ca coow dem ca ndax moo kenn jàkk te gisu dara saa bu ne yàlla mu ne àll fatal ma ndax ndax ñoo niroo ak ñoo yam déedéet al ahma wal basir mooy xol buy gis ak xol bu gisut xol bu leer bu gëm yàlla ak xol bu gëmul yàlla waaye suñuy soobee yi ñu àbb ko koo xam ne danga naa ko nasal ma puso bi mu ne jàkk puso bi nas ko moo ki ko koy nasloo moom lu leen wutale ñàkk man a gis kon yemuñu nee na lëndëm ak leer itam de ku génn ci lëndëm dugg ci leer da xam ne leer ak lëndëm du baax waaye ku jóge ci guddi dugg ci bëccëg it da nga xam ne guddeek guddeeg bëccëg yemuñu moo ne yonent yi suñu borom yi lim ba nam toll ci bariwaay lii alxuraan tudd ko lii alxuraan tudd ko it ñoom ñëpp kenn amu ci sikk ñoom ñëpp a jag waaye nag am na ci ñuy tudd ñoo xam ne ab limu ñaar fukk yu teg ci alxuraan tànnaat nañ ca tànnaat ca tànn ca moo ne ñëpp ay yonent lañ de waaye nag ñàkk a yamale suñu borom la soob bu ñu ñëwee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne moo gën ci ñëpp bu ñuy jàng ci fiq dañ naan ginnaaw yonent yi ñi ci gën ci nit ñi mooy Abu Bakar ki ci gën ba ci Ousmane Seydina Ousmane Abu Bakar Omar Ousmane Ali ba ci fukk yi nga xam ne yonent bi dana diw yéen ñi àjjana ngeen jëm ëllëg diw fil janna diw fil janna fil janna ndax ñoom taxoon na ñu nekkoon ñu ñun ñëpp gannaaw àjjana lañ jëm ñoo kenn ku ci nekk daf koo dolliwaat aw xel ak laxasaay bu dëgër xam ne suñu borom coobareem daal lay jëfandikoo. ndax yonent bi leen koo wax te lu mu wax dëgg la ba ko yàlla ne inna fataxna laka fatxan mubina li yaxfira laka allahu ma taqaddama min danbika wa ma taaxara wa yutima nicmatahu aleyka ba aaya yi cay wax yépp àgg yàqalu ko dara ci taxawaay guddi ba tànk yay neew ku dëkkoon moom ne ko waaw li yàlla wax nag foo ko bëgg teg ak coono yi nga nekkee mu ne ko dama ciy sant yàlla ndax xam naa ne defaluma yàlla lu ko jar lu ko ko jaral ak lim ma defal man lu defal lu lu nit ki dalloo yàlla lu lu jaral la mu ko defal déedéet waaye dama ko ci sant waaye bu ñu demee ci benn benn jullit yi nga xam ne tam ñoo ñëw gannaaw yonent bi sallallahu sa wa sallam itam rawante nañ ak yemoo képp munu caa feeñ ndax loolu coobare suñu borom loolu jum noppi dinañu tëkkale aw nit nag ci ku ci ëpp xam-xam waaye ku ci ëpp xam bu ñu ko xasee wax kon yam yam nekku fa waaye nag ñii féete kaw ca nekk ca kaw donte dañuy rawante ci seen biir ci ñàkk yemale suñu borom gi it am nañu joxoñ suñu borom nee na ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla di ko jëfe ci seeni cër di ko wax ci seeni làmmiñ saa su nekk dañuy am lu ñuy rawee ñi ci des ba faw yarfau llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat moo tax ñiy wax dafa am ku ko tënk ci ñeenti tomb yu gàtt nee na ñiy wax ñépp ba ci ñenaan ñépp ñoo yàmb nee na ñiy wax mënuñoo génn ñeenti kuréel yi benn kuréel bi boroom xam-xam boo xam ne xam na lañ ko jàngal ba ñu ko doon jàngal seereel ko ko moom ci boppam mu xam ne xam na ko nee na kooku fu ngeen taseeg moom déglu leen ko te laaj ko mooy ku xam lool ba ña ko doon xamal xam ne kii ku xam la moom it mu xam ne ku xam la kooku nañ koy laaj ndax moom wurisu ko bàyyi muy dem mu tudd alim ku xam ba noppi xam ne xam na kooku lu mu wax dañ koy déglu te kooku du sañ a wax ne ñépp a yam du ko sañ a wax ak koo xam ne xam na ñi ko xam ñépp xam nañ ne xam na te moom xamul ne xam na nee na kooku nañ ko yee ne ko yow mii kat lii nga xam mosal mu ci nañ ko yee daa sàggan rek waaye xam na waaye xamul ne xam na kooka it du mas a wax mu ko ne ñépp a yam ndax xam-xam ba moo ko ci dul bàyyi waaye ki la ñetteel mooy koo xam ne xamut dara te xam na ne xamu dara nee na kooku moom mu tudd jaahil dëgg dëgg dëgg kooku fa ngeen ko fekk neen ko jàngal ku xamut te xam na ne xamut moom saa bu ab jataay amee bu ñu waree laaj la muy tuddoo mu rocc ku ndànk ndax xam na ni xamut xamut te xam na ni xamul kooku nee na mooy jaahil dëgg te suñ mbakk bu sa mas wax ne jaahil moom ak nguur la nguur gu nguur gu buure sax ndax xamul lu aay xamul lu aay xamul moo def xamul lu ñu war def lu ko neex def rek ki leen ñeenteel mooy koo xam ne xamut te du mas a xam te it xam na ne te tam xamut ne xamut ku xamut te du mas a xam te xamul ne xamul nee na kooku moom kuy wër ku rokkasu dëgg dëgg dëgg boo ko gisee romb kay dootoo ko gis xamut te xamut ne xamut xamut xamut ne xamut nee na kooku moom kuy xool ku rak kuy gis kuy wut ku rak rokkasu dëgg dëgg dëgg dëgg ñeenti xaaj yooyu nag ku leen mënta xàmmee ci jamono am na jafe-jafe kuñ jàngal ba ña ko doon jàngal xam ne liñ ko jàngal xam na ko mu xam ne xam na ko kooke moo mat a wëri mën nañu tudde aalim waaye ki nga xam ne xam na ne xamut ba noppi jàpp ne daa xam di ko wan nit ñi maanaam ki xamut ki xam ba noppi xamut ne xam na ki xam ba noppi xamut ne xam na daa xam ne xam na dañ ko war a wëri mu jàngal leen mooy aalim ki nga xam ne daa xam te xamut ne xam na dañ koy xamal ko xam nga war dem jàngale ji moom itam ki nga xam ne nag xamut te xamut ne te xam na ne xamut kooku it mooy jaahil dëgg moom wóor na ko xamut te xam na ko kooku lu ñu koy dégloo muy wax nañ ko jàngal xamut te xam na ni xamul saa bu am ndaje amee boo waree jël kàddu danaan roseer ndax xam na ne xamul waaye dajaa yu amul rek waaye koo xam ne xamut dara ba noppi xamut ne xam na xamut tamit kooku moom nee nañ daaroo ko xamut dara ba noppi xam googee it ku xa ginnaaw xas na ne xamut moom dutu xam dara kooku moom mooy ku rokkoo si dëgg yax ba mooy rajulun yadri wa yadri annahu la yadri fa dalika aalimun fasaluhu wa rajulun yadri wala yadri annahu yadri fa dalika gaafilun fa nabbihuhu wa rajulun laa yadri wa yadri annahu laa yadri fa dalika jaahilun fa allimuuhu wa rajulun laa yadri wala yadri annahu laa yadri fa dalika al axmaqu fajtanibu kon mbokk yàlla yemalewut loolu moom ku ko doon wax na ko delloo fa mu ko jële woon yemalee gut ca la weesu te noppi na ci ay dogalam faw ñeenti kuréel yooyu ñoo fi nekk kenn yëmu ci ak moroomam ba ko wala fa tëgg def ne daal ku ne ñee ñëpp di ñëw ñoo tolloo moom ñoon ma rekk la neexul waaye xam nga ne ñu yem amut suñ cër yi naa ko léegi ku tàllal ay waaraamam dana ko ci xam ci kàttanug suñu borom it ak coobareem néeg boo dégg mbooloo nekk fa nga xam leen ñoom ñëpp ku ca reer da ko xàmmee yemuñu sekkantuma bu bu ñu dox di ñëw lu nit niroo ak niroo nit lu niroo niroo niroo dana am lu leen wuteel loo xam ne yàlla la soom lu ñu baax baax baax baax bañ boole leen benn néegi dana ca am ku gën moroomam ku ko gën a baax bañ ko xam xam nañ ni moo leen gën a baax ci wet waaye ña ca desit lu ñu sàggan sàggan sàggan sàggan danañ xam ne diw mi ma leen gën a sàggan fuuf yemuñ ci sàggante kon boo kenn ku ci nekk la ko yàlla sédde la ñu maanu dëgg-dëgg nañ ko ko nangul bu dee ak baax la nañ jéem dem jéem caa am te ñu bañ a nekk rek di ko tëkkale ak ak ak ak ak def ko liggéey déedéet nañ jéem a wuti ca lam yor bu dee koo xam ne sàggante la gën a fese ci ay moroomam it ku ko xamoon na ko bàyyi soo ko munta wàññi ndax ndax ñax gu wow bu dee tàkk te fay man naa lakkaale gu tooy gu de den ndax da koy séndal ba mu wow koŋ mu lakk ko ni moom yàlla na yàlla defal dégg ko topp te musal ñu seytaan nekk pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin ci jamono yi nga xam ne ñëpp dañuy yittewoo xarala yu bees yi jëm ci kër wala ci bureau ak yeneen digital store indeeti na ay xeetu matériel yu mucc ayib yi mujj génn ci jamono ji ay matériel électroménager informatique yu ngeen di faral di gis ci marque yu mag a mag yi su ngeen demee ci sunu showroom yi nekk Bourguiba wala Corniche Soumbédioune Colobane ak Point E lépp nga fa digital store lépp lu mu jaay ànd na garantie am na service après vente bu farlu buy dem fépp ci région yi ngir rek dab bànneexu client yi digital store lépp lu mu la jaay dafa la koy livré ba fan ko soxla li ci gën a neexati mooy lépp lu ngeen fa jënd lu tollook ñaar fukki junni wala lu ko ëpp digital am na partenariat ak banque Microsen ak Cofina ngir yombal leen payor bi ci 12 mois wala 24 mois moo xam ndax ordinateur ngeen jënd wala téléphone portable wala congélateur wala réfrigérateur wala climatisation centrale wala split su leen neexee itam ngeen def seen commande en ligne ci www.digitalistore.sn Digitalistore mi ngi ci réseaux sociaux yi Facebook Instagram LinkedIn ak Digitalistore Améliorez votre quotidien. Téléphone 33 823 77 87. yéen a ko doon laaj yegg si na TQG Touba Quincaillerie général ñu gën ko xam ràññee ko lool ci njaayu matérielu quincaillerie de qualité egg na Kër Massar showroom bu mag ca Kër Massar showroom bu mag a mag a mag a ca Kër Massar lii lu rëy la lu doomu réew mi def ca Kër Massar soxlaatu leen dem ba dakaar pour outil matérielu quincaillerie yu baax TQG Touba Quincaillerie général Kër Massar yéen la fi nekkal lépp lu ngeen soxla am na fi peinture sanitaire décoration intérieure serrure de qualité matériel de travail et d'ouvrage am na fa di ci woo waa Kër Mbay Fall waa Jaxaay waa Tiwaawan Pël waa Fass Mbaaw waa Kër Njaayloo waa Tëngéej bu kenn demati Dakar di wuti matériel u quincaillerie Touba quincaillerie générale egsi na Kër Massar du yéen a ko doon laaj li ngeen bëgg rek ci la ñu dox lii daal seen yëf la yéen waa Kër Massar ku ci bëgg lu la leer wooteel ci 33 879 28 28 wala 78 206 88 88 Touba Quincaillerie Générale notre force la qualité. boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés bind abonné bu leen fàttee bës fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo